Bonjour, comment ça va et comment va la santé jërë ngeen jëf ñu dikkat ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum wér-gu-yaram beneen yoon ak laaj mi nga xam ne dafa bëri ay ferñeent tabax lool ci suñu wàllum wér-gu-yaram ferñeent yooyu yi ci njëkk mooy laaj dafa am iode tax képp ko xam ne da am goitre dañ naan la del jël xam ne moo di laaj ndax dina ciy baax laaj dafa am silice te bépp lijum buñ naa dafa am silice dañ naan dafay baax ci ay yàq kon laaj bokk na ci li nga xam ne dafay dëgëral ay yàq koy diw ci fépp foo xam ne dafay métti dafay baax ci boobu métti laaj kon dafa baax tamit ci li nga xam ne moo di nopp yu riir ci indi ci ay njariñam muy li nga xam ne dafa baax ci cholestérol kon képp koo xam ne da nga am cholestérol da ngay daal di jël lu tolloo juróomi doom daal di koy daggate ba mu àgg nga def ko comme comprimé euh, di nga ci gis ni mu baax ci cholestérol bi laaj kon dafa baax ci sukkar boo xam ne dafay daal di yéeg da ngay daal di jël lu tolloo juróomi doom yi daal di koy booleeg li nga xam ne tamit moo di persil bi daal di koy jël litre ndox def ko ci daal di euh, baxal ba mu tàng nga bàyyi ba mu sedd nga di ko jël matin midi soir da nga ciy daal di gis njariñ li mu ci andi ba tey ci ay njariñam baax na ci li nga xam ne moo di jigéen jigéen ñooñu nga xam ne dañ naan jigéen dafay faral di taxaw kon bépp jigéen boo xam ne dangay faral di taxaw dangay daal di jël li nga xam ne moo di benn doomu laaj daal di koy xolli di ko dugal ci sa kanam heure booy tëdd boo xëyee génne ko loolu tamit dina la dimbali ci boobu jafe dafay baax ci sukkar buñ ne tamit dafay baax ci tension buñ ne tamit dafay am solo ci suñu yaram ci bépp xeetu métti ci kon laaj ak yeneen i njëriñam nekk na lu am solo lool ci suñu wàllu wér gi yaram jërë ngeen jëf kon mbokk yi ñu doon bàyyi xel loolu leen andi loon ci suñu wàllu wér gi yaram di leen jox dig daje ci beneen